desee dëgg te gis nga nag suñu borom kenn mënu koo nax mhm. loolu faaw mu leer yàlla mhm. kenn mënu ko nax te gis nga projet bi mhm. baye boo nit ñi jéem ci rafet d'accord Ousmane Sonko sax na na ma yàlla baal tey bu ko bëggoon a yàq dana jafe ci moom d'accord parce que bu ko bëggoon a yàq tey tey tey gis ñu jàkkaarloog ñoom parce que ñi ko topp ñëpp jom lañ ko toppee am na nag ñoo xam ñi ci ëpp nag loolu laa jàpp man dama ko doon yàgg di wax ku ma fekk ci biir projet bi dama lay jàppee as góor te benn instant nit ñi ñu ngi commencé def nii. Mm-hmm. commencé bu kiy waxee fii te moom xam nga wax na fii ay nit xaajaloo commencé nangam. Mm-hmm. man nag xabaar bu ma gisatee di wax parce que nee na biñ jëkkee def erreur mu ku mel ni yow daf maa war woo mais loo wax ci penc ba def say dégâts mais bu ñu lay jubbanti jubbanti wootuñ la ko pour yow. Mm-hmm. pour waa penc mi nga def. waa mayee sa tànk waa APR war cee mën a jël ba commencé. góor su taxaw yor jabaram ak doomam. yow loolu nga doon toppee Ousmane Sonko du Adji Sarr da ko da ko da koo fenal. tuumaal ko nga taxaw yow nga taxawaat tey di tuumaal loolu nit loolu lay niru. léegi yow ana yow yaay kan looy jàngale. d'accord très rapidement ñu ngi jaajëfal aussi le ministre de l'éducation nationale Moustapha Guirassy moom itam mi ngi dox ay jéego yu solo ngir daara yi ñu intégrer leen euh, ci système bi bu ko defee ñu mën a bokk ci ñi nga xam ne itam dinañ leen encadrer di leen fay par weer nga xam ñooy jàngale ci daara yi ngi koy jaajëfal bu baax ci loolu très rapidement saa li ma mayoon ci waxtu jeex na mais dafa am question boo xam ne ñaari question sax la muy Guy Marius Sagna ak parlement bu CEDEAO sant yàlla di yaanal ñaanal mu yàgg fi te wér sëñ gi wuyu askan wi laa koy woowee mm-hmm. xam nga gii député du peuple la woon sans mu koy nekk mm-hmm. dem ensemble dem ensemble représenté ñu fa nekk vrai mm-hmm. député du peuple jóge fa ku ne dem na parlement CEDEAO de waaye ñi fa mas a fis bañ leen di wax kenn dalaa commencé a gis ku fa xawoon fis muy Moustapha Cissé Lo Mm-hmm. doon nga ko dégg surtout bi mu ko nekk doon na yëngu wax dëgg yàlla mu yëngu ci nga mën koo cee mere wala nanga mais en tout cas ñu ngi ko doon dégg te doon nañ dégg muy taxaw di kaas mm-hmm. mais gii nag démb te dafa am lu commencé woon a am mooy ñi doon yàq suñu der deru Sénégal ci Afrique surtout suñu digganteeg ñi gars yi doon xase naan pour euh, les pays du Sahel mm-hmm. les états du Sahel ñooñu dañu commencé dëppaat di continuer di gën a joxaat loxo grâce à Guy mm-hmm. loolu mooy li li li wolof di wax maanaam tey li ñuy wax naan euh, kenn ku ci nekk mm-hmm. yow da ngaa wuut mm-hmm. sa njaboot fa nga nekk maanaam ambassadeur nga ci l'islam bi nga nekk parce que tey buñ ne jullit bee def lii muy lu rafet suñ ko taggee dañ naan lislaam mm-hmm. na bu dee yow tey ab wolof nga génn mm-hmm. def lu rafet dañ naan lislaam mm-hmm. pëlëfuute bii génn wax lu dul yoon tey tey buñ koy tooñ danañ yàq deru pëlëfuute yi waxewut ni mu waxe wala nangam na kon kenn ku ci nekk boo génnee ambassadeur nga mais en tout cas gi il ñu représente dignement yegg ci surtout xam nga man bi surtout li mu wax ci teewaayu pinut muy organisation bu mel ni ñoom fa ñu nekk. Mm-hmm. ñun bañuy civiliser. Mm-hmm. naan ko ay mille deux cent trente six. Mm-hmm. moo tax li ma doon wax waa ji fi toogoon nga xam ne xamul dara. naan ay lislaam fii la jógee maam gars yi dañ leen a jox yoo xam li koy def nag bon bari na bari na ñoo xam ne xam nga tey tey rek damay am benn vidéo bu ma am ñu doon laaj sëñ Mbacke Abdourahmane yaakaar naa ci. léet ndax daggan na muy muy expliquer baraan la profet yonent bi daan na def lu mm-hmm. mel ni karawam da daan bëri mm-hmm. ba muy def lu mel ni ay maap mm-hmm. tresse comme loolu te pourtant gis naa benn euh, waaye buy benn américain bu ñëw di jullee masaalik <laughs> nit téye ko naan ko seen affaire góor jigéen yi yaa ngi gis lool te pourtant kooku noonu tey ab jullit la bu doon julli te lim def pour na ko kee firee nag mooy dafa wan ne bu dee fa nga nekk culture ba loolu la laaj pourtant noo def ak ñi doon wax naan Lat Joor Maba Jaxu ko tuubal naan bi nga koy tuubal da parce que dafa létt woon mu firi létt ji hmm. xanaa kon loolu suñ culture la woon hmm. fii Sénégal góor ñi dañ daan léttu di hmm. <laughs> moo tax bi moo tax sëñ bi bi mu laalee kii boobu ba léegi boroom xam-xam yi kenn kenn kenn weddeetu ko de na gaa yam loo wax ñu wax la gis nga fii mm. buur yi ñuy wax di leen wax waxi ceddo mm. commencé ay mille cinq cent quarante-neuf ci Amari Ngoone Sawel bu la ba yéeg bu la mm. neexee avant moom sax ñooñu noonu wuuri kajoor yi mënoo ma cee andil ku dul tëb jullit mm-hmm. d'accord mais faaw ñu jéem a xam nit yi gis nga bu wax naa ko fi waxaat ko mm-hmm. arab làkk la mm-hmm. araab yi ak seen culture yonent yàlla Mamadu ci àdduna bi wër ngër kàpp lañ ko yëkkati lañ ko yónni ci ñépp ko war a nangul ñépp ko war a gëm loolu mooy li am ku ko gëmit mm-hmm. euh, na ko na ko na ko na ko suñ suñ euh, suñ borom waxee ca kahfi rek mm-hmm. waxulil xaq min rabbikum fa man saa fal yumin mm-hmm. wa man saa fal yakfur ku yabu gëm ku yabi weddi maanaam ku ku ku yabu foofu kon bu ñu yónnee foofu mooy bu doonoon ab sin waa ñun ñëpp ko waraat a taxaw gëm nangul ko. waaye nag bu desee ci culture. Mhm. ah ma bàyyee naar beeg culture d' accord te sama mbatit man. sama sama sama sama. d' accord très rapidement Barthélémy Dias le maire de la ville de Dakar ak euh, Bassirou Diomaye Diakhar fay dañ leen a invité euh, France ci Jeux olympiques yi nga xam ne mooy am foofu de xanaa a daje ñoom. ah waaw en tant que ñuñ invité. xam nga mhm. président Diomaye laaj nañ ko bi mu mhm. nekkee France. benn waayu yeewi ne ko. Euh, taxaw euh, bon Yewwi quoi xañ na dafa nekk taxawut taxawu da Yewwi wala nangama nga mm. mais laaj na ko lu tax mu ne ko Barthélémy Dias en tant que maire bu dee dafa soxla mm. état mën na dem gis euh, ministre de territori collectivité territoriale waaw yenn saa yi waati français yi nag dama ci mhm. dama ciy juum xam naa bu waa ji nekkoon dana ma kaañoo mhm. <laughs> mais man aw ma aw ma problème <laughs> aw ma problème boobu voilà mu ne ko en tant que maire mu insisté mu ne ko mais maire ville nag mu ne ko man maire yi Dakar ak bu Njaga Njaaw ak bu Mbadakhoune laa yemale maire maire la boo ma kiyee ministre boobu nga soxla moom ngay teg en tout cas duñ leen gàllankoor li état waraloog ñoom dana ko def. Mhm. lu leer mu ne ko en tant que personne nag nit nag bu ma bindee wala tout comme euh, liggéeykat wala ma ne bu ñëwee dama koy recevoir amu ci problème. kon buñ fa dajee it ñaari kilifaa fa daje waaw ah, bu ñu fa dajee waxtaan rek. d'accord mu doon tabaski neex dagan. <laughs> d'accord jërëjëf Sawalo amoon naa ñaari question mais waxtu yu xoj nañu te am na beneen émission bu war a daw ndax ñi ko war a def ñi ngi euh, toog ci salle tant bi saa ñi ngi lay jaajëfal ba naa euh, émission bi moom xawoon naa tàng tuuti mais waa ji euh, itam Omar Modou Koumba nee na itam le débat est nul ah ñu ngi koy jëggal baax ci loolu xam na ni ñun moom. Euh, moom la ñu yemale ak Saa Wolof ndax ñoom ñaar ñooñ suñuy invité mm-hmm. kenn ku ne may nañ la temps d'antenne waaye ñoom itam seeni i réplique seen biir mënu ma saa mënu ma contrôler mënu ma ko contrôler <laughs> ñoom ñaar fexe naa ba canaliser daal mais vraiment ñu ngi koy jaajëfal moom itam moo du Koumba ndax dagg na temps am ñëw diñu di ñu suivre ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Saa Wolof yow itam ñu ngi lay jaajëfal nga bàyyi la nga tàggoo Moussa Lamine nii fu ma ko jàpp moom moom laa bëgg a am xam nga ci laa bëgg a wone li ma man mm-hmm. ci laa wone sama di saay loxo mais di di di di sant jëpp ah, di leen xamal ne mm-hmm. bi may wax nag euh, wax dëgg yàlla tey saa bi ngeen gis mm-hmm. li may mer ci plateau maam li wax ji di am yëpp ki mooy topp di waxal kooku laay topp kooku mënumaa merloo mais waa ji génn tey wax ci waxam ji muy wax ay naan doon sénégalais mooy ñuul ba mel nu kenn xamul wala mm. ñaaw bu nàngam di di saboté mm. borom li li mu bind yëpp kàcc la di wax naan depuis deux ans ans wala nàngam mm-hmm. loolu moom merloo rawatina ITV mi nga xam ne moo jël loolu te ITV dafa commencé am liggéeyu commencé di saboté mm-hmm. Sénégal surtout y a des vidéos yoo xam ne fii ci lu ma am ci wàllu loo xam ne buñ ci toppoon ci côté mm-hmm. ethniciste la jëm ci beneen côté bi mm-hmm. ñemewu ma ko sax génne est ce que xam nga man sama yaay xam nga nu mu tudd mm-hmm. ummi ba man sénégalais laa maanaam yi nit ñi di wax affaire raciste mënul nekk sama yaay ummi ba jooju maam ki jur baayam mooy pël maanaam kon tey man sama deret boo doon xool eh, tukulóor a ngi waaw aw ma boobu problème te noonu laa sama soxna dèjà pël la xanaa ah, loolu gën a dee. voilà kon xam nga ne kiy toog di wax nii. Mhm. amul problème yooyu mais nag lii may wax nii. bu ko mhm. ab wolof waxoon tey. Mhm. nga attaqué ko. non non man man boo laalee culture euh, Sénégal wala mbattit mi mboor mi. fii laal nga saa wolof. loolu moo ci nekk looloo tax tey bi mu ci duggee nag. di wax ci lu mu xamut looloo ma énervé ma ne ko waxoo dëgg. d'accord te si c'était à refaire dama koy def keneen ku taxaw ci man gis nga làkk wi. mboor mi mbattit mi mm-hmm. aw ma ci ndey aw ma ci bàyyi xam naa itam